kontaan na ci yéen sama mag yi nga xamné ni ko que ma wéet toute la famille jërë-jërë yépp toute la famille ma ngi leen remercier depuis Dakar famille Doudou ndjay Rose ma ngi leen ñaanal sama soxna taxaw na taxaw bu rafet ci guddi gi ñu déparé Grand Théâtre ànd ko wa Grand Théâtre ndax duma faté wa Grand Théâtre donc lu ñu songone la sama rek yi ñom Alé Mboup ñoom Akassa gaa yépp ñew ñu bégee programme bi nag li ñu ci intéressé woon mooy lii bésu tey bii ñu def programme ba pare jël li ñu am dugal ko ci néegu yàlla mooy jumaa ji nga xam ne ne que moom laay tabax fii ci Sing Sing donc sama njort ak sama xamxam ak sama doole man mënumaa dem fenn sans Kaolack ndax nu ma mel rek Kaolack la samay waajur dëkk Kaolack la sama famille dëkk Kaolack laa am je munti damit lay hmm. et ma ñew ba Sing Sing donc ji nga xamne ne ñu donc vraiment ñu ngi talal loxo ñep kep ku ci mëna ñew su ci agge ak di ci suñu borom donc ndax neegu suñu borom rek et donc mention spéciale comme depuis grand grand théâtre jusqu'à présent ku n'est pas Demba vraiment ci moral ci lu bari Doro Gueye ah, sama rakk Ousmane Nawel Dieng Ousmane Ndour Moussa Diama ah, munu len faté fàtte ah, docteur Mokumba, gis nañ sa taxawaay yow ko bir Kaolack mais gis na talon yu bari yi nga jënd donc loolu maa ngi koy rafetlu bu baax hein Badara Ndiaye donc vraiment munu la faté waxuma sax ni nga téyee Djey Baba mais man mang ngi lay téye naw naa la loolu ku la naw laa et jumaa ji nag ñu ngi leni talal loxo di len wax ngeen ñaanal ñu ñu àggaleeg suñu sago néegu yàlla moom néegu yàlla rek la du man maa koy def nag ndax équipe bi nekk sama gannaaw muy jëre jëre production jërëjërë TV donc dañ ma gëm et di leen tàllal loxo li nga xam ne dañ ko waral a lancé ci album international bi yéen ñëpp ngeen ñaanal ñu mu génn ñu béggee ñun ñëpp. waaw xam nga man awma droit def erreur ci Kaolack askan wi def ma bëgg dañ maa bëgg te man politiku ma dama ñëw pour askan et je pense que ne ne que su suis politique duma def sama réew dara te dama gem jeunesse bi dama ne fi la judo, sama fi la juddoo suñu taw fi lañ judo. te politique sain ku ci nekk ci kaw ci kaw ba ci président sa wajuru jaar ak donc ñun dañu nekk famille bo ne demander xaar rek pour ñu ñu loxo rek donc nous soutenir et suma ma côté politique ma bañ cee wax et di ñaan yalla aussi dëkk bi yalla na fi yalla doli jamm man en tant que doomu Saloum en tant que doomu Kaolack ci culture lepp luma wara def ci culture fi ci dëkk bi dama koy def projet bu 10 la woon. c'est projet 75 millions hein mais yalla suñu borom moñu gungé yalla moñu gungé ba lepp mat yalla mi motal lepp nak dama koy jël tégaat ko ci loxom donc ba nga xamné ne ne que ku melni ministre de la culture aussi mënuma ñak remercier ko bien vrai que bi muy ñëw yëf yi xat na hein? parce que juste que bi mu toogeeg léegi yàggul mais recevoir bi encourage bi donc yëpp ñu ngi koy santé yalla sama mag Youssou Ndour aussi gis na ni mu taxawé parce que du ben spot de télé bo xamné ne def naa ko TFM génne un franc joxé ko fu melni sen TV aussi mention spéciale donc ñomit sama samay frère lañ donc man j'ai pas droit def erreur ci politique politique ma dama gëm dëkk bi xam ne que man fi la dëkk ñi fi politique kenn gënu ma fee yey et sama wàll moy ma def lima war ci dëkk bi ku xam nak man personnellement fi ma tollu dañuy and ak yow ku xam man fi ma tollu dama xamna man fi ma tollu fan la parce que Sénégal ma ñor Kaolack a ma ñor. bien vrai que en tant que doomu Kaolack musuma ñëw cœur de ville ta fayuma parce que bëgguma ñu né dañ may xaar heure bu ma muy préfecture muy police muy sapeur lu ci mënti nek dama nan li ci gëna am solo moy yalla buma def programme kaolak amel kenn 1 franc te lolu maa ngi koy sant yàlla mosuma amel kenn 1 franc te duma amel kenn 1 franc directeur bi aussi bu bees bi c'est un frère maa ngi koy ñaanal cœur de ville donc Badara yalla na yéen wi oyof gis na liggéey bi ni mu rafetee te yaakar na ne que dewen suñu fi yalla baye ak jamm te ñu fekkee ko tal ko et ñu am vraiment soutenir donc man lépp lu may def Kaolack mooy dama ko bëgg def gratuit loolu laa gëm du lu may def pour ut ci weccet mais bés bu ma amee doole bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg pour charge les hôtels ku mel ni Ali Rose mention spéciale hôtel Adjana depuis la première fois jusqu'à présent heure bu may def dara il est seule personne bu may dimbale moralement ci poosam ci hôtelam ci lépp donc kooku moom mënu ma ko bañ a ñàkk a wax quoi. gis nga nombre de artistes yi ñu indi fii. limal ñëpp amul kenn ku ma ci yoreel un franc kenn ku ci nekk avant nga yéeg sur scène fay nañ la sa xaalis aale loo xaalis bi ak Mathias mi ak Fat Ndaw ñu fay la ba mu mat donc le nag c'est ñu ciy dugg donc sant nañu yàlla julli ci Seydina Mohamed sant samay ñaari waajur sant sama papa Vieux Seck moo tax maa ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla na Kaolack am jàmm du ma ko ñaanal sama njaboot mais dama naan Kaolack yàlla na ñu am jàmm ndax su Kaolack amee jàmm rek dëkk maam Baye Niass ah mhm. dëkk maam Basirou pencu sëñ Basirou maam xalifa mhm. ah donc fii jàmm ku ko fi wootewul sax doo ko am et e, kaneen aussi donc samay wóolëre bàyyi lañ ah donc ku mel ni Marème Faye Sall baayam ak sama baay ñoo doon ànd loolu c'est des relations yoo xam ne boobu judooguñu mhm. et donc kon projet bi buur ku ci jàpp baax na ku ci jàppatit ñu ngi lay ñaanal xam ne ne que prochaine fois di nga ci jàpp wasalaam